Euh, la position de Ousmane Sonko par rapport ak ni mu téye fi jamono ji euh, depuis qu'il est premier ministre euh, certains y voient certains moom ngay bañ <laughs> li ma ko waxee ma déedéet gis que ne il de pouvoir et que il fait beaucoup de sorties pour peu de résultats même bi nga ci am je que non. ah yow posé nga question nga tontu kon man noppi rek. non bëgg xam mooy. fan fan fan fan fan ngay teg sa nom bi. moo tax hmm. lu ñuy wax trop de pouvoir pouvoir bu mu daf ko tirer. daf ko tirer de la légalité cest à que par rapport à son statut de premier ministre amul pouvoir bu mu jël boo xam ne c'est en dehors de ses prérogatives mhm. premièrement deuxièmement bi Ousmane jëlee primature ba léegi la première sortie c'était juste esplanade grand théâtre et depuis lors de temps en temps il fait une sortie sur Facebook Bekooku voilà c'est toi parce que sortie bu Facebook bi mooy fu mu ne député yi. Mhm. su ngeen pareewul fii ba la caayaan. du ñëw je du ma ñëw mais je vais bu mu leen ma tere ma rencontrer le peuple souverain. Mhm. ak théâtre ak ambulant yi aussi ak Colobane léegi ana wax ñu bëri. ak ñi bëri wax kay ñi bëri ñuy wax kay mooy ñi ñàkk njëriñ mooy ñi nga xam ne. ñoom ñooy benn benn bokk yaakaar. wax ju bëri ci assemblée ba seen propre carence moo leen rattrapé ba ñu nekk tey dañuy une position boo xam ne humiliante man ruus naa tey